ngeen yàqu ko ah suñ bagage yëpp kay dem nañ kay loolu kay loolu loolu loolu kay di doomu aadama mënu si dara waaw ah mais est ce que avertir nañ leen ah déedéet kenn am man de yëguma ko avertiruñu de gars yëpp kenn waaw dañoo bàyyi ba nit ñi wàcc ñu ñëw jël bagage yi nit ñi def ko ci camion dem tuuri ko bagage yoo xam ne ni valeur yi kenn xamul ni mu toll ku ci nekk sa bagage man de sama bagage man li ma bàyyi woon fii nii moom su ma ko jaayee lépp lépp ëpp na cinq cent mille te lépp dañ ko jël dem tuuri ko ma ñëw gisuma ci dara te defuñu avertir defuñu hmm. dara waaw ñoom daal dañoo bàyyi ba nit ñi wàcc ñu dem jël bagage dem tuuri man xëy ñu woo ma téléphone ne ma sa bagage jël nañ ko dem dem tuuri au lieu que ñu yóbbu ko euh, kii mairie ba ku ñëw fay ñu jox la sa sa bagage wala ñuy avertir nit ñi ne leen maanaam euh, fii da ngeen fi jóg temps nangam mhm. bu ngeen ko fi bu temps boobu jotee te jógu fi bu ñëwee dañuy jël seen bagage dem ko koo wax loolu mu xam ne lii nga ko bu ñëwee bu fekkee ne tuuri na loolu moo ko def mais ki nga xam ne ni yow da nga ko waxoo ko dara da nga bàyyi ba mu wàcc rek nga dem jël bagage tamit au lieu que yow nga ko mairie mais yow da ngaa dem tuuri ko loolu loolu loolu tooñ mënu ko raw ak loo nekk nekk ci dëgg nag yow bu fekkee ne nit ki fi mu laal moom nekku ci dëgg itam yow li nga def moom tooñ la ndax defoo joxoo nit ki benn avertissement waaw. ok. moom koy daam li mu wax rek moo fi ne. ñoom kay ñëw nañ rek ñun boobu sax ñun wàcc nañ. gars yi ñoo ñu woon ne ne xam nañ ñoom ñëw nañ gars yi gars toj fii nii ci lañ ñëw yeneen bagage yi dem nañ yeneen yeneen yeneen yeneen bagage yu ñu jël leen affaire bi loolu la rek waaw. ah ñoom daa ñoom ah man de moom wax dëgg la moom xam naa man daa kenn avertir ñu ko fii moom amul avertissement amul